dina boo doon xarit bàyyi naa la boo dee eh, mbokk mbaa doo bi déception man Boga suma xarit la suma rakk la c'est mon frère moom moo nekkoon directeur euh, Cœur of Champion club de boxe moo nekkoon bon waaw man ak Boga xaw ma xaw ma su ma lay wax rek man voilà Boga c'était mon homme fu ma dem rek moom ma may topp donc léegi nag voilà on va dire c'est la moitié de de mon corps qui est parti léegi nag voilà quoi xamul sax may wax boogaa c'était tout relation ñu ma am xam nga mooy jumeau xam nga jumeau voilà léegi nag ñun était cousin de frère de sang mais ay jumeau lañu nekk man su ma defee rek mu woo ma man su ma defee mu woo ma nekkul nag boxe man maa ko dugal si boxe dafa xam boxe dafa xam ay ambassadeur dafa xam ay ay ñëpp quoi ñëpp la xam xam nga boogaa soo ko xamee moom dafa am éloquence ci olof ñu waxee comme si Pondiane fut son père. te loolu loolu luy sax li ma nag moom man su ma waxee tubaab moom mooy ko wax si olof. Mhm. comme ça du ñuy jaxase. waaw liggéey bi mu def euh, dañ koy tàccu parce que ñëpp ñëpp ñëpp ko jooy sax. Mhm. cœur of champion du président Fabrice Poulain à ak ñëpp quoi parce que Boga moom moom si famille bi si cœur of champion la bokkoon. Mhm. donc euh, cœur of champion dañuy wax. cœur of champion dañuy aujourd'hui on a perdu quelqu'un tout ce que j'ai pu faire def naa ko def naa ko léegi nag euh, yàlla moo ko bind donc je peux pas faire plus que ça donc je peux qu'accepter rek tey dama per benn xarit rakk grand frère moom ma mag de un an donc léegi nag euh, voilà quoi mais il faut que xam nga ko à chaud rek du benn c'est au bout de quelques jours léegi nag il faut que ma toppatoo jabaram ak doomam parce que c'est ça l'avenir donc foofu ni ñu xool quoi.